ñu wax ne verdict bi mooy dafa wane rek Sénégal tey réew yoon la la justice justice bu indépendante la ba pare amul kenn koo xamante nii ab sénégalais nga boo xamante ne nii justice bu fekkee ne par exemple am nga coow wala problème ak justice justice du mën a def liggéeyam mhm. ndax malgré coow li malgré saaga yi malgré wax lu bon malgré dëkkal ñeneen fu ñu dëkkul tey jii gis nañ ne justice dox na li nga xamante nii moom mooy verdigam te Sénégal ak fépp dañuy wax ne la justice est rendue au nom du peuple sénégalais donc ku ci nekk tey mën nga ci am sa xalaat ak sa wax boo xamante nii loolu moo ci sa xalaat nga wax ko ci maintenant li nga xamante nii moom laay njëkk a ñaawlu mooy d'abord yenn organisation société civile yi pour ne pas les citer mën naa wax sax Seydi Gassama parce que Seydi Gassama à chaque fois su fekkee ne am na loo xamante ni joxe nañ ko ci wàllu justice mu jëm en défaveur des membres ou bien de un membre de l'opposition nga gis ko mu génn wax alors que gis nañ fan yi ñuy taal ay këri jàmbur kenn gisu ko mu génn ñaawlu wax ay waxu droits mais donc je pense que loolu aussi loo xamante ni société civile ak kan moo partisan mooy benn beneen bi mooy xam nga aussi tey jii lii am maa ngi dégg ñu bari naan way viol la ñu waxoon pourquoi mais lii c'est pas un fait nouveau xam nga lan la ñu war a laaj est-ce que lii nga xamante ni moom la juge bi jàpp wax corruption de la jeunesse est-ce nekk na ci code pénal ak code de procédure pénale est-ce que nekk na ci ñu ne waaw est-ce ju juge bi décision bi mu jël motivé na ko ñu ne waaw est-ce justice permettre na mu jël décision bu mel ni ñu ne waaw donc tey amul dara loo xamante ni war nañ ko mën a wax par rapport à cette décision là mais gis nañ à chaque fois depuis 1960 ba léegi que justice ñu ñëw accuser nit ne nangam la ñu ne bi tribunal bi ñëwee def nañ requalification des faits comme ni ko procureur bi def ko woon ci réquisitoire am ñu gis ne condamné nañ ko pour nangam mais loolu c'est un fait banal au niveau de la justice donc il faut pas que nit ñi jéem a jaxase xel nit ñi di bëgg leen di wax loo xamante ni nag naka su noonu la parce que dañu doon wax ne complot viol ak leen d'abord li ñuy wane décision bi mooy complot musul am li am mooy Ousmane Sonko moo wax ci gémmiñam ne dem na Sweet Beauté moom euh, dugg na fa fekk naa ndaw si loolu ñëpp wax nañ ko donc tey ñu ne corruption de la jeunesse et cette décision juridiquement est motivée par li nga xamante ni moom la tribunal bi wax joxe ko comme verdict donc vraiment il faut que les hommes politiques reviennent à la raison sénégalais yi ñu wax leen li nga xamante ni mooy dëgg te ñu xam ne cette décision c'est une décision de justice boo xamante ni ku ci nekk am nga nag sañ-sañ wax ci sa xalaat waaye est-ce que se motivé juridiquement loolu on répond par l'affirmative et je pense que loolu moo gën a am solo te loolu mooy wane ne Sénégal justice bi malgré euh, clameur publique bi malgré saaga yi malgré ñu leen di dëkkal fu ñu dëkkul ils ont montré encore une fois de plus que ay nit lañ ñoo xamante ni mat lañ seen place mat lañ fi ñu leen di lan lan ngay tontu ñi di wax ne kon verdict bi nag euh, tentative la woon rek pour écarter Ousmane Sonko 2024. oui xam nga nag comme ni ma la ko waxee xam nga les faits sont la le commentaire il est libre loolu moom yàgg nañ koo wax waaye nag xam nga Ousmane Sonko kenn takkul ay bëtam takk euh, ay tànkam yóbbu ko suite bët ne ko ñëwal mansew en ci couvre-feu ah. moom moo ko defal boppam donc jàpp naa ne bu fekkoon lam fa def moo ko defal boppam la xew ci ñoom seen biir la xew wax dëgg yàlla damay bàyyi sénégalais yi ñuy jugé ci loolu. dialogue bi nga xam ne daanaka door na ni ki démb dialogue national bi ndax yaakaar am na ci. waa yaakaar lu cee ñàkk parce que boo gisee kilifa yu am solo yi nga xamante ni teew nañ dem président de la république bi nga xam ne mooy njiitu réew mi def lancement officiel bi ak waxtaan bu am solo ba nga xamante ni waxtaan nañ ko fa ci wax ji ba pare ay termes de référence yoo xamante ni président wax na ne non seulement ñoo ñëw nekk ay parti wala ay personnalité dañuy joxe seeni point de vue pour que ñu constituer commission yi ci biir mois bi ñu mën a ay conclusion donc yaakaar mënut a bañ a am ci loolu parce que Sénégal réewu dialogue la te président de la République nit la koo xamante ne ni lépp loo xam ne taxawal na ko pour waxtaan ko pour askan wi daf ciy def fulla ak fayda te ña fa ñëw ay nit lañ ñoo xamante ni ñu tekk ci réew mi lañ xam réew mi nekk ñoo xamante ni réew mi kese moo leen tax a jóg et gis ñi nga xamante ni ils sont dans l' comme ni ñu koy waxee opposition radicale ñu waxal ko seen bopp sax ñoom ñëw nañ wax seen xalaat parce que xam nañ ne président de la république li muy def dëgg la pour réew. jërëjëf euh, honorable euh,